di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yu baax yi ci jataay bi waaye di ndokkeel bu baax itam suñu mbokk sëriñ Cheikh Sylla Talib ci liggéey bu réy bi nga xam ne sottal na ko ci xam-xami tasawuf ak ay nitam ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi te fay ko ci ngën ji fay te jeexit ji àgg ci mbooleem jullit ñépp tasawuf ci gàttal rek mooy li gën a kawe ci dundu lislaam waaye ñi koy tuddoo ñoo ko xajamal léeg-léeg ñoo koy xajamal léeg-léeg it mu am ay nooni boppam yoo xam ne ñoom dañ ko noonu rek te yàlla tax ci lu dul benn sabab ñooñu it di leen sànni xeer ak di leen waxal wax yoo xam ni la ci ëpp du deme nañ koy waxe waaye gàttal gi mooy tasawuf mooy buntu mucc moo lay may muccuk àdduna ak àllaaxira di la may xol bu jag bi nga xam ne boo ko yóbbaalee ca sunu borom tabaaraka wa taala doo fa am benn jafe-jafe tasawuf alquraanul karim moo ko jàngale léeg-léeg di ko tudde tazkiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di tudde ummu sunna mooy xadis sayidna omar ñeneen di ko xadi xadisu jibril alayhi salaam bi mu ñëwee di laaj yonente bi lan mooy imaan ak lan mooy islaam ak lan mooy ixsaan yonente bi tontu ko ca ba noppi ca mujj ga mu wax ne fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum jibril moo ñëwoon di leen xamal seen diine boroom xam-xam yi balluloo ci ne kon léppi diine mi ngi ci xadis boobu da ko njëkk a lan mooy islaam ñu xame ni islaam kon mooy wet gi jàngale jëfi kaw yi ak yi cër yi jëf ci xeeti jaamu yàlla julleek woor ak asakaak xaj makka ak jëflante bi muamalaat lu mel ne jaay jënd ak takk soxna ak ya ca aju yooyu islaam moo koy jàngale boroom xam-xam yi tuddee ko al ñi koy gëstu ñu leen tuddee al fuqaha sayidna jibril laaj ko beneen laaj lan mooy iimaan yonente bi tontu ko ñu déggee ca ne kon xam-xam boobu moo lay jàngal li aj ci ngëm nga mbirum xol la naka ngay gëme yàlla ak mboolem la aju ci suñu borom ak malayka yi ak téere yi ak yonente yi wàcc akub dogal ak yi ci aju loolu it ba tey borom xam-xam yi koy jàngale ñoom lañu tuddee ulama ut tawxid waaye ci biir xadis bi da laaj lan mooy ixsaan ixsaan boobu itam yonente bi tontu ko ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak wax ko ci ñaari maqaam yoo xam ni moom la tekkee lixsaan maqaamul muraqaba ak maqaamul mushahada fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka loolu mooy muraqaba mooy ngay bàyyi xel yàlla xam ne mi ngi lay gis di gis sa yëngu dara ump ko ci yow loolu jaam bi bu fa àggee dana bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala waaye lam njëkk a wax mooy ka annaka taraahu moom la gaa yi tuddee mushahada mooy lépp nga ci bàyyi xel suñu borom lu ci ne nga ciy gis yàlla mooy nga ci xam ne xam kattanug yàlla gi ak xam-xamug suñu borom ak xereñam gi ak ma ba ca ne te bàyyi ko ci suñu borom tabaaraka wa taala loolu kon tasawuf foofii la la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dala jàngale waaye buñ boolee aayaat yu bari ci alquran ak ahadis yu baree bari dañuy gis ne ixsaan muy tasawuf ñetti xaaj la benn bi mooy sa digganteeg sa boroom tabaraka wa taala an taabud allaha ka annaka taraahu fay in lam taraahu fa innahu yaraak waaye beneen xaaj bi mooy sa digganteeg sa moroom sa moroomub jaam looli yi sunu borom wàccee na ci aay yu bari di wax ixsaan bi war sa digganteeg jaam yi moo xam say wayjur la wala say bokki jegeñaale wala ay jirim sax wala miskin yi ak julit ñëpp ak mbindeef yëpp kenn ku ne taxawaay bi nga war a am ci moom suñu borom jàngale na ko ne ci ihsaan la tàbbi ba ci liggéey bi ngay liggéey di ko liggéeyal sa bopp yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shay inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqina kon liggéey bi ngay liggéey loolu ixsaan da ca war a feeñ ñett yooyu nag bu ñu àndee mooy ab mutasawif mooy ab suufi boo xam ni yitteem mooy dàkk suñ borom di ko bàyyi xel ci lépp di jëflanteek moom it ci lépp waaye ci biir jëflante bi muy jëflanteek suñu borom nag du neenal mbokkam yi nga xam ne ñoom la nekkal ci kaw suuf te loolu yemul ci nit ñi rek mboolem mbindeef yépp day jëflanteek ñoom ci biir jëflante bi muy jëflanteek suñu borom tabaaraka wa taala xanaa di sant yàlla rek sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax sant nañ yàlla bu baax sant yàlla na sant sant yàlla gi sant yàlla nag dañ ciy dugalaale sant gi ñu leen sant sant gi leen war a sant dañ koy dugal ci biir sant gi ñu sant yàlla war a sant yàlla li fi jot jàll ci ay wax lépp suñ ko boole woon lima war a sant mu këpp li war a sant moo këpp ci ay nit ci seeni jëf ak seeni taxawaay ak seeni waxin kon loolu day tegtale ne dinaa lottu lool ci bëggoon a lim kenn ku nekk aw turam wala kenn ku nekk jëf jëm jëf ci suñ jëmm ju xeebu ji yëlloowuñu jëmmi Seex Sylla du ma ne nit nit nit moom yàllaa ko teral ndax nit moom ak nu mu mën a demee rek yàlla teral na ko pare kon du ma ne ñun suñ jëmm ji waaye jëmmi Seex Sylla Seex Sylla moom Seex Sylla taxawaay bi ngeen def bu rëy bi yëlloowu xanaa ñi dugg ko ci wala xad karam naa bani aadama rek mu dugg ci loolu ki kilifa yi ñu fi tudd ñëpp rek sant nañ leen ñi fi tudd ñëpp ñi teew ak ñi teewut ñi nga xamee ne teew nañ sant nañ leen ñi teewut te yónnee ñu leen teewal li sant nañ leen waaye di ngeen ma baal ma tudd ñaar wala ma tudd ñeent su suñu suñuy waajur noo ngi leen di sant waaw suñuy waajur mooy ñaar ñi ak waa waa waa ñi ñu ñëpp rek ndax nag wolof day wax ne lëg xamu nuñ koy waxee bu bu ah, bu lëgoo olam na ko gëlëm a coy noonu ko wolof yi waxee ndaxit it doomu aadama bu ko yàlla bindee faw mu am fu ko jaarale faw mu am fu ko jaarale amut ku yàlla bind mukk te amut fu ko jaarale dégg nañ ko amul ndey dégg nañ ko amul bàyyi waaye ku amul ndey ak moom yàlla bind ko kooku kenn la muy càppaa ci gi mu yàlla ñun nag yàlla bindu ñu jaarale ñu ci fi muy jaarale ñëpp ku baax fi mu lay jaarale jaaral nañu fi ku nekk ci safaan it fi ñuy fi fi ñu baaxoo jaarale jaaral nañu fi ñu sant yàlla bi mu ñu jaaralee fi mu ñu jaarale muy ndam rëy ci ñun ñu di ko ndamoo ci biir ak ci bit ci su buñ ko waxee buñ ko waxul nag ñu koy ndamoo noo ngi sant bu baax maa ngi jégalu baax a baax a baax di sant média yi naa leen baax ñoom moom li ñaan ay collègue wala ay caméra daanaka ndax maa ngi ñoom ñoo nekk waaw ngeen yi xel ne man maa leen sañ a téye nag ndax dama bokk ci seen biir bu ngeen ma soxlaa ma jug kon bu ma soxla bu ma leen soxlaa war ngeen a jug ñi ngeen gis ci affiche beeg ñi ngeen ci gisul ñëpp sant naa leen gërëm leen ndax ñëpp a teew mënu ma leen tudd ndax du ma leen tudd kon sant nañ ñaan yàlla suñu borom tànki dem yi ak yu dikk yëpp yàlla na leen ko yàlla fay aw yiw wu du dakk te ful ko ba aljana li sëñ Muntaxa di wax ne am naa yaakaar ci ndaw ñi yàlla nañ ko dëggal waaye li ñu wax li muy wax ne yàlla nay neex ba aljana yàlla nañ ko suñu borom defal in uridu ila al islaha mastatu ma tawfiqi illa billah hasa wa sallallahu ala nabina muhammad wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh